koor dafa nekk li nga xamante ne lu yéeme la yàlla kese xam xam nga te yàlla daanaka doomu aadama du la siise ci say jëf ci say doxaleen nii ci xol la ak sa jëf. faral nañ di gis ñoo xamante ne du ñu woor maanaam euh, dañuy nekk ci place yoo xamante ni euh, nit ñi dañuy woor ñoo fay nekk nit ñi woor a fay nekk euh, ñuy jot seen i cigarette maanaam yi ay lekk yu mel noonu di lekk si kanamu nit ñi lan mooy sa xalaat. waaw xam tam rafetul. ndax nit ku mom su fekke ne mos nga war sa morom wor so le lek war nga meuna nebeutu nëbbatu ba lek ba pare bu fekke tam nga su fekke ne bu fekke ne tam da ngay tox dangaa war dem benen côté nga toxee côté bobu parce que yow mi tok li ngay tok xeyna arranger na la waaye xeyna arranger wul keneen ki ci dess té loolu mom c'est pas normal am na yoo xam bu ñëw ba nga gis ñu commencé man dama amé ulcer ñina dama amé estomac ta fekk du dara xif lañu mënu dañ ko tamul parce que dañ koor koy tam ba nga xalé nit moins nga mëna nebeut ku woor rek sa bopp nga wooral lépp lépp lu waaye def rek boppam da ko defal kon nag woor dafa baax waaw te nit ki dam boo wooree dina am yenn feebaru nekk si yow yu bëri da koy dañal si jaamu yàlla la daal lu xam ne weer dong la nit mën na see profité jaamu si yàlla ñaan si soxlaa mu may ko ko kor yàggul nit ki moom boo xam ne sa wareef moom ah da war a bañ lu bari quoi man moom en ce qui me concerne man Abdou Karim ah euh, mën ci ko du def loolu quoi parce que li sànq rek comme ni nga ko euh, sànq benn chauffeur nee naa ko 12 mois yàlla santaane nga woor benn benn weer jaamu ko ko c'est facile quoi boo déggoor yàlla di nga ko def. déjà koor gi bu ñëwee ku nekk daal xam nga ni weeru koor ñëw na mais am na ñoo xam ni sam comme sama yenn genre yi dañuy profité di porter malade euh, wala ñu dem wuti ay bulletin euh, wan ni dañoo feebar wala affaire yooyu te fekk peut-être koor gi daal moo leen moo leen moo leen mënuñu si dugg quoi. kon ku si nekk am na loo xam ne moo la teree woor mais tamit ku nekk ñun yàlla rek moo xam santaane li muy santaane ku def yàlla mooy fay ku deful tamit yàlla mooy fay léegi daal ku nekk ak li nga gàddu sa mbuus rek bu ëllëgee ñoo xam ne ñu fay fekk mais kantaa nag ñi nga xam ne waruñu ñëw si ñëw si bi ñëw si nit ñi nga xam ne dañoo woor di jaamu yàlla di tox cigarette xam naa nga mais sax bu dul woor boo tëxee cigarette ñëw si place boo xam ne ñooñu toxuñu ñu xenju xet bi loolu dafa aram loolu tooñ la quoi xam naa nga tey ji kooku noonu woor ñëw ci nit ñi di tox nii mu ngi ak maxaynam xam nga mu ngi ak xelam yaa moo toll foo xamante ne tey nit ñëpp dugante nañu dugante boo xamante ne nit dina dem bay def loo xamante ne war na ko ne ñi muy nekkal mu ngi leen di lox yaa ngi dégg li ma lox mais benn instant nii nit ñi ci boppam ñoo dem a dem ba nga xamante ne ku ci nekk am nga kersaay parce que nit am na nooy nekk moom di nga ko rus wax sax defal yi wala defal lay. woor moom boo nekkee doomu julli da ngaa war a woor tey ñii nekk ci mbedd bi di tox di lekk loolu moom du yoon boo woorulee da ngaa war dugg sa néeg nga lekk parce que yenn yi tamit baaxul wooroo ba pare nga nekk ci biir nit ñi comme élage li muy def di tux cigarette affaire yooyu loolu tamit baaxul. bu koor gi commencé jumaa yi jàkka yi dañuy fees mais bu demee ba am 10 jours wala bu mel ni ay 20 jours dañuy gis ne day wàññeeku lan mooy sa xalaat. waaw dëgg la sax kenn ku nekk rek kenn ku nekk xam naa rek ak sa ak sa gis-gis ndax xëy na commencement koor gi mën nañ ne kenn ku ne nekk dangay concentré wu ci koor gi mais buñu kenn ku ne sa activité mooy problème mu korité yooyu xëy loolu la. moo tax ma ne la ñuy dem ci jàkk ja ah mooy ñi nga xamante ne parce que gis nga lan moo am am na ñoo ne seytaane moo leen moom ba pare ñu ngi dem di julli di nax seen bopp di jaamu yàlla mais fekk ne dañuy perte. dañoo tàmmul julli rek julli moom soo ko tàmmee lu ne budul koor rek ñàkk koor yëpp da ngay julli loolu ñàkk gëm sa bopp rek la waaw mais nit moom bu tàmmee julli ak woor fu fu ko julli fekk rek dafay julli. weeru koor yoo xam nga ne soo ci duggee ñetti fan ñeenti fan doo continuer. jaxul nga ci dugg parce que soo ci duggee soo dogee mu neex la am nga dèjà kafaara kafaara ñaar weer ngay fay wala nga leeral juróom-ñaar fukki miskin 15 jours yi mujj yi moom gars yi moom duñ ko dañuy woor 15 jours yi njëkk yi rek mais 15 jours yi njëkk yi muy góor di jigéen ñi bëri dañ nekk ci restaurant yi di lekk di añ te loolu du yoon. am na ñoom suñu wooree ba wori ñu ngi lijjanti ñoom fu ñuy war a fatu wala ban xale lañu war a àndal wala kan lañu war a nekkal dèjà amatuñu koor nañ ko xam nga mu la ah tey koor gi tey am na ñoo xamante ne balaa koor weeru koor geey ñëw yaa ngi dégg ñu xaaral ma tëj kalso bi. tëj bi maanaam mooy. dem uti seen benn xale nekk ak moom foo te lan la ñu wax soo njaaloowee soo jaamoo yàlla ñeent fukki guddi yàlla du ko nangu kon dèjà ñooñu li ñu kalso noonu ak li ñu wóor yëpp amuñu dara.